góorgóorlu yi ma jooy ngir métit di xool sëriñ maa ngi tudd Moustapha ture di jàngee fii ci daara Masalikul Jinaan war a teewal Sénégal fële ci concours Dubaï di woo Sénégal yëpp ñu ñaanal incha allah yàlla may ñu ndam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi woo mbooleem sëriñ daara yëpp ak mbooleem sénégalais yëpp ak mbooleem képp ko xamne rek yaangi ngi dégg suñ gi di la wax nga di sakku ci yow ñaan nga ñaanal suñu candidat bi di Mustafa Touré wara téwal Sénégal ci concours international bi am Dubai waradon doon tolloog ci wéru Ramadan wi ñu nek wi ñu jublu di ñaan ngeen ñaanal ko suñu borom defal ko mu dem ak jamm dik ak jamm te suñu borom may ko fa ndam lu kawé dañ xamné ne ndam lu mu fa jël rek ndamul Sénégal la dafa wat turu Sénégal ci kaw ci kanam ci walu alcorane ak siggilaat fa julit ñëpp loolu nak kon ñun julit ñëpp daal ñi ngi leen di ñaan ngeen di ñu fàtt ngeen di ko fàttaliku ci waxtu jot ci ay ñaan ndax euh, gannaaw aw waajtaayam ak lim man li ci dess nak li koy gungé li koy gëna a dëgëral mooy ay ñaan kon ngi wo mbolem Sénégal yëpp ngeen defal ko ay ñaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون